awul pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xam ne ñoo ngi si tudd Macky Sall Aliou Sall ak Frank Timis ci lu jëm ci ay njuuj njaac ak i njaaxum ak i grawale ki looxóor ba léegi ni coow li maa ngi wëy yéen kaay gii di réew mi ko dëjee ak enquête ak Walfadjri mu ñu xamal lan ñu samedi ji nga xam ne moom la ñu génn kuréel gii di aar li ñu bokk ñoom doon ñu amal ay manifestation yéen kaay groupe promo consulting gi mu ñu xamal lan ñu kuréel gii di aar li ñu bokk seen manifestation ba nag maanaam bëriwutoon ay nit ñoom waa aar ñu bokk ñoom nag nee nañu danañu porte plainte préfet bu ndakaaru ndax ñoom dañoo gis ne mooy saboote li nga xamante ni mooy seeni i manifestation te day salfaañe seen àq ak seen yelleef ba tey ci biir journal bi mu ñu xamalaan ñu kuréel gii di aar la ñu bokk ñoom nag li ñu bëgg mooy contrat yi nga xam ne jot nañ koo signé ci pétrole ak gaz bu Sénégal te ñoom ñu jàpp ne am na ay njaaxum yoo xamante ni am na sa maanaam ñu daal di koy xoolaat yéen kaay ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag la mu xamle nee na Macky Sall moom du contrat yi jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal rek la salfaañe am na yeneen contrat yoo xamante ni Macky Sall jël na ko jox ko waa Turquie lu ci mel ni fer de Falémé te loolee ay njombe ki grawale ki scandale yu rëy moo ca am yéen kaay gi ñu fekk fa doomu Zambol Dias bi di baax Barthélémy Dias moom nag la mu xamle nee na su ngeen déggee Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye di wax ci lu jëm ci mbirum élection locale ak caution bi loolee dafa bëgg a tuur lëndëm askanu Sénégal rek bëgg ñu nekk di wax ci mbiri élection locale te dikkagul maanaam daal li nga xamante ni mooy pétrole ak gaz bu Sénégal dañuy wéy di ca daa di wax yéen kaay gi du source a mu en tout li am ba des sa mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal coow li ba mu commencé ba léegi nii gis nañ si nag ay wax yu juyaloo yu bare bari yoo xam ne am na sa njobbaxtalu état ga ndax nag moom Macky Sall ci juin atum 2018 la mu waxoon mooy nag jot nañu daal di xoolaat contrat yi nga xamante ni jot nañu ko signé ci ressources naturelles yi ki nga xam ne mooy Mamadou Kane Fall mi nekk secrétaire bu COS-Petrogaz moom nag la mu xamle nee na contrat yi amul kenn koo xamante ni mën na koo négocier waat yéen a kaay gi mu ñu la ñu moom nag bi coow li doog di commencé la mu xamle woon nee na nag mbir mi affaire privé la ca ginnaaw ga ci la ubbi ab enquête ci wàllu woowu yéen kaay gi mu yokk sa Aliou Sall mi nga xamante ni moom ak El Hadji Kassé seeni wax tamit dafay juyoloo yéen kaay gi du source mu ñu xamal lañu en tout cas li am ba des daal si njobbaxtalu état bi jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal seeni wax dafay faral di waro lu bare bare Moustapha Diakhaté bi jiite woon groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar nekkoon fi tamit chef de cabinet Macky Sall moom nag jamono ji mbaadu Macky Sall wala Aliou Sall kenn si ñoom da koo tooñ en tout cas Moustapha Diakhaté mer na loola yéen kaay gi ñu fekk ko fa moom saa Touba la mu xamle nag nee na Macky Sall ci boppam dafa ay njombe ki grawali yu mag la Macky Sall def jël sunu pétrole sunu gaz bi contrat yi di ko jox kii nga xamante ni mooy Franck Timis Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ñoom ñi nga xamante ni suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi wax ci pétrole ak gaz bu Sénégal samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ñaar ñi nag demuñ woon ci li nga xamante ni mooy manifestation yi aar la ñu bokk doon amal Mbaye Ndiaye moom nag la mu xamle nee na kuréel gi yi nga xamante ni mooy aar la ñu bokk dañuy caaxaan rek te nag manifestation yi nga xamante ni ñoo ngi koy sàkku dañu leen koo war di tere Aliou Tine moom nag la mu xamle nee na mbir mi ci boppam dafa war a leer te nag mbir mi li naqari ñëpp jaaxal ñëpp mooy Aliou Sall mi nga xam ne mooy nday mbili gi lan moo tax ba léegi nii kenn convoqué wu ko moom Aliou Tine ci yéen kaay gi du Sud Quotidien la mu xam ne nag nee na communication bi nga xamante ni moo am ci pale bi nag maanaam bëri na ay wax yoo xamante ni ñoo ngi koy wax te dara du ca dëgg moom Aliou Tine la mu xam ne nag mooy mbir mi Sénégal yëpp li ñuy sàkk mooy mu leer te war a leer les échos yéen kaay mu jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk APR dëkk Pikine ñoom dañu doon amal am ndaje waaye nag ci ay giraawaale kii njombe yu rëy ca la mujj jeexee sànnantey xeer ya sees ya di naaw deret ya di walwal di tuur daggantey saaga ya journal bi mu ñu xamal lañu en tout cas daal jox xar bi nañ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Awa Niang yéen kay gii di Rewmi Quotidien ak Sud Quotidien ak L'Observateur ñu fekk fa Eliman Kane mi nga xam ne cadre la woon ci ONG Oxfam te nag ñu daal di ko fay dàq moom la mu xam le nag nee kilifa yi daal dañ a sant ngir nag ñu daal ñooy góor jigéen yi loolee nag la lank ba tëdd sat naaj wa moo tax ñu daal di koy dàq journal bi du l'observateur dikk ci lettre bi nga xam ne maanaam moom Eliman Kane daan na koy wax ne seeni kilifa ñoo leen ko yónnee woon ci ab mail lettre boobee ñoo ngi ko titré lettre d'amour source a moom bàyyi mbir yooyu nag dikk ci giraawaalee kuk njombe kuk musiba ba kumba gu rëy goo xamante ni daan nay xew fi nga xam ne mooy Touba quartier gare bu ndaw yéen kaay gi di source a ci xalim ak Mor Mbaye Cissé nee na benn jàngalekat alxuraan maanaam benn ustaas yegg si ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni seeni at weesuwul fukki at ak ñett ci Touba mbir mi nag maanaam soo moytuwulee dina jur coow lu rëy rëy rëy yéen kaay gi nee na en tout cas benn xale bu jigéen bi la mu le nee na oustaz bi daf ko woo ca néeg ba simmi ko nag ba pare di fo ak moom maanaam di ko làmbatu beneen xale bi nag la mu xamle nee na bi yàgg naa ànd ak moom yéen kaay gii di source am mu ñu xamal lan ñu oustaz boobu nga xamante ni moom la ñuy tuumaal moo def googu lee ñaawte fa daan ne moom la ñuy génn sa mujjantal ga sax daan nañu koy nag def ab sous mandat de dépôt ci la yéen kaay gi dikk nag ci wàllum tàggat yaram ñi nga xam ne ñooy waa Égypte jamono ji nag àdduna bi moom màbb si seen kaw ki nga xamante ni nag moo jiite woon fédération ba dafa tekk ndombal tànkam ba pare nag dàq staff ba yépp ki nga xam ne mooy Mohamed Salah moom nag jamono ji mën nañoo wax ne ballon door bi daan na koy romb journal bi nee na Sadio Mané bu góorgóorloo tuuti rek daal di jot les échos ñu fekk fa Mbaye Diagne naagu nee na Sénégal jamono ji nag ban équipe la ñu war a dajal final moom la ñuy xalaat ci loolu la ñu nekk.